abonné leen ci seen youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen man di ko jot ca tàng-tàng ba audu billahi min alshaytani arrajim bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala waala alihi wa soxbihi wa man waala mbokk yi bàyyi xel euh, chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi balu ñépp xaq di baal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane ñaari mbir yoo xam ne mbir yu garaaw lañu waaye mbir yu raglu lañu mbir yu yées lañu yoo xam ne képp kuy jullit ku bëgg texe àdduna ak texeg alaaxira war na ko moyt dama naan sax képp koo xam ne nit nga te bëgg ngaa nite war nga moytu ñaar yooyu ndax bu dul diine sax dëppoowut ak dignité waaye dëppoowut ak noblesse bi ñu war a séentu ci doomu aadama muy nit ku nite sax laay wax ñaar yooyu mu bëgg a waxtaane mooy jëw ak euh, rambaaj alxiiba wan namima dinañ leeral danger bi nekk ci ñoom garaaw gi ñu garaaw ak yées gi ñu yées dinañ ko leeral incha allah ndax day lor ki koy def waaye itam day lor ñi koy déglu day lor société bi waaw uh, indi itam tegtal ak cëslaa yi wane ne jëw ak rambaaj dañoo xaraam dinañ ko indi incha allah suwaat ñu jëlee ko ci alquran wala ñu jëlee ko ci sunna waaye itam dinañu leeral ay cas exceptionnel yu nga xam ne islaam dina ciy daganale euh, jëw maanaam jëw am na fu muy dagane xam naa du neex a dégg waaye buñ ci àggee dina dina leeral maanaam am na jëw yoo xam ne islaam araamalu ko garaawalu ko du ci tege bàkkaar waaye itam dinañu leeral ku toog ba mu yàgg ab jëwkat ñëw ci yow bëgg a ànd ak yow di jëw wala ab rambaajkat e, ñëw ci yow bëgg a ànd ak yow ci rambaaj nan nga war a taxawee yan matukaay nga war nga war a jël mbokk yi kon ngir bañ leen a lu yàgg dañu daal di dugg directement ci thème bi incha allahu rabbi mbokk yi jëw ak rambaaj dey bokk na ci feebar yi gën a gën a garaaw moo tax booy xool ci société bi ñi feebar te faju jiwuñ ñoo ëpp lool ñi feebar faju ji bari na nag médecin yeeg docteur yi lu ñuy recevoir ci ay patient waaye itam lu ñuy hospitaliser ay nit ci hôpitaux yi ci poste de santé yi ci district sanitaire yi ci centre de santé yi ci case de santé yi ñuy recevoir ay patient rek di fajaka hospitalise rek waaye ndekkee su amoon hôpital établissement sanitaire bu ñuy fajee jëw wala rambaaj ndeke kon mooy gën a fees hôpital yi ñuy faje corona wala paludisme wala tuberculose walla cancer du poumon wala bopp buy metti wala biir buy metti wala yu mel noonu waaw ndax feebar boobu moo gën a garaaw waaw feebar boobu li muy yàq ci nit sibiru du ko yàq corona du ko yàq waaw soj du ko yàq tuberculose du ko yàq ñoo gën a mën a affecté santé spirituelle nit ki waaw ndax damay wax ne lépp lu yàlla ne garaaw na dama wax ne moo ëpp danger lu nit ne garaaw na waaw lu garaaw kay mi ngi yem ci lu yàlla garaawal te jëw nag yàlla da koo garaawal dane yaa ayuha alladina aamanu jtanibu kathiran min alwann inna bacda alwanni ismun wala tajassasu wala yagtab bacdukum bacdoo ayuxibu axadukum an yakula laxma axiihi mayta fakarihtumu wattaqullaha inna allaha tawaabu rahim yàlla subhaanahu wa taala nee ñi gëm yàlla dee leen moytu di demee njort dee leen moytu di demee njort waaw waaye bala ngeen a jàppal nit ki dara wala ngeen waxal ko dara na ngeen ci am ay preuve yu leer nàññi nàññi waaw Euh, mel na ni Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku ne xamoon na ko ca noppi ga néewi wax lool te rëy jëf yu baax néewi wax te rëy ay jëf yu baax moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma dégg naa ci nettali ci nettali ñu ne am na ku ko masalaag ne ko waaw sëñ bi dañuy seetlu ne day fekke fooy waxe yombut de ndax li ngay noppi moo ëpp li ngay wax ca lañ ma nettali dañ ne Serigne Cheikh dafa tontu laajkat ba aji laaj ji wala ka ko doon laaj wala ka ko doon poser kestion bi ne ko su fekkoon nit lu mu wax sañ koo waat dey su fekkoon nit ki bala moo wax dafa war natt li muy wax mu leer ci boppam ba mu sañ koo waat kon wax du bari waaw kon da koo bëgg wax ne ko su fekkoon ñépp a ngi wax euh, lu leen leer kon ñu bari dinañ ma fekk si ci sama noppi gi yàlla subhaanahu wa taala nee na euh, njortu moom li ci ëpp walla lépp bàkkaar rek lay indi waaye nee na dee leen moytu di yëddu nit ñi di espionner di làqatu ci ginnaaw buntu néegu nit ki di déglu ay communication di déglu ay waxtaanam bu amee gan yaa nga ca fenêtre bi yaa ngi ca buntu néegam léeg-léeg sax nga gis ñuy wujje nekk ci genn kër am koo xam ne day yëddu ay goroom wala boroom këram wala ay njëkkeem wala ay wujjam wala wujju peccer goom léeg-léeg ngay gis ku ci yàq xale ndax dangay gis kuy sëy ci kër yabal doomam doom ja di déglu doom ja taxaw ca euh, fenêtre yi daa di wàcce boppam ba kenn du ko gis muy déglu wala mu nekk ci ginnaaw néeg yee di déglu te mën naa am ka déglu mooy gorob yaayam wala wujj yaayam wala njëkkee yaayam wala peccargo yaayam wala yooyu dem di ko nettali yaayam muy jur musiba yu rëy rëy ndax lan dana indi féewaloo ca kër ga ak i xuloo ka ay conflit yooyu waaye dana tàmmal xale bi itam jikko ju ñaaw yàlla subhaanahu wa bu kenn jëw moroomam bi mu nee nag bu kenn jëw moroomam daal pose benn question bu nga xam ne question pédagogique la muy laajum njàngale la laaj la bu nga xam ne ku ko tontu rekk automatiquement dangay ngay conscient ci gravité jëw question bi mooy lan mu ne ndax kenn xalaat na fekk frère am magam wala rakkam bu mu bokkal ndey ak baay wala ndey kase wala baay kase mu faatu mu tiim néew bi di ko lekk waaw ndax am na kenn ci yéen ku a fekk freeram bu faatu magam wala rakkam mu tiim néew ba di dagg di lekk ndax loolu kenn xalaat na ko xam ngeen ne mos tontooguma de waaye laaj bi ba ma ko jibalee rek yéen ñi may déglu yépp ngeen maase ne cam loolu kay kenn du ko def yéen ñëpp maase ngeen ne cam loolu kenn xalaatu ko loolu de ëpp naa wax sax waaw ñu bari dar nañ seen gémmiñ ñu bari taf nañ seen nopp ndax lan laaj bi ni mu garaawe jëf ji nga xam ne moom la yàlla ne ndax kenn xalaat na ko kenn ci yéen xalaat na ko def jëf ju garaaw maase ngeen ne a cam waaw ni ngeen seexloo fekk néew bu faatu rawatina mu doon seen mbokk ngeen di ko lekk nee na na ngeen seexloo noonu jëw kon képp ku ne accam di wane ne seexlu nga lekk ab néew ba noppi ngay jëw jàppal ne yow moom kiy lekkum néew sax tanewu la yow waaw képp ku xalaata jëw daal yow ab jëwkat daal tanewul kuy lekk ab néew ba di ko xas ku nekk war a xas lekkkatu médd ba mu des ab jëwkat loolu laa bëgg a wax kon nag na ngeen ko bañ képp ku ci sóoboo gul na xam ne ma ngi ca yoon wa na xam ne ma ca yoon wu baax wa mu gën a mu gën a sax ca yoon woowu waaw waaye ku ko daan def itam na ko bàyyi te ragal yàlla te tuub ndax yàlla moom ku bari njéggal la ku bari yërmande la aussi yàlla ku mën a baale la ku bari yërmande la waaw aaya bi mi ngi ca suuratul xujuraat diggante ay aaya douze ak yooyu kon mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala xamal nañu ne doomu aadama li mu gën a bañ nga xam ne nature am sax da koy rejeté mooy lekk medd waaw waaye nag euh, rawatina bu medd ma wala ki faatu bu nekkee mbokk mu ko jege kon tiim nit maanaam nit tiim nit ne moroomam nit tiim nit ne moroomam mu faatu mu tiim néew ba di ko lekk ku ne seexlu na ko de waaye ma ngi koy gën a seexloo bu néew ba nekkee mbokk mu ko jege waaw bu ko defee nag noonu ñu seexloo tiim ab néew di ko lekk rawatina néew ba nekk mbokk mu ñu jege ci wàllu meen wala geño ah nañu seexloo noonu jëw te xam ne euh, ñooyam mbokk yi lan mooy jëw ñu ne jëw de mooy ngay tudd sa mbokk fu mu nekkul ngay tudd nit ki fu mu nekkul di ko waxal loo xam ne bu teewoon wala bu ko déggoon dana ko metti lool lool définition bii nag du sama définition bopp waaye yonent bi sallallahu moo définire noonu jëw moo ne atadruuna mal ghiiba qalu allahu wa rasuluhu aclam qaal dikruka axaaka bima yakrah qiil afa raayta in kaana fi axi ma aqul qaal in kaana fiihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fiih faqad bahattah yonent bi salaam nee na ndax xam ngeen luy jëw ñu ne kaa lu ñu ci yàlla xamalul akub yonentaam day xamuñu ko ci ndax yàlla akub yonentaam ñu gën a xam lu baax ñooñu gën a xam lan mooy safaanub mbaax kon nag ñoo ñu gën a xam luy jëw yonent bi sallallahu alayhi ne jëw mooy ngay tudd nit ki di wax ci moom loo xam ne su ko fekkee woon wala mu dégg ko wala mu jot ci dina ko naqari te ba nga koy tudd fa ko tuddee moom nekku fa dafa absenté waaw ñam doon waxal ñu posé ko beneen question ne ko waaw su fekkee bi nga tuddee nit ki fi mu nekkul li nga wax ci moom lu am la nag maanaam nga ne diw dey ku nay la fekk dafa nay effectivement dafa nay wala nga ne naankatu sàngara fekk moom la wala nga ne ab sàcc la fekk loolu la maanaam bu fekkee daal danga teg ci deram loo xam ne malgré que ñaaw na waaye nag lu am la effectivement moo koy def yonent bi sallallahu alayhi daan ne su fekkee li nga ko waxal jikkooma lu nekk ci moom la lu muy def la su boobaa lay tudd jëw waaye su fekkee danga ko waxal lu nekkul danga ne ab naankatu sàngara la te moom xamul lu xetu sàngara di xeeñ lu ñamu sàngara di saf xamu ko su boobaa jëwoo ko de waaye danga ko sosal wala danga koo duural danga ko duural te duur nag muy sos inventeel nit ki lu amul moo gën a garaaw jëw kon mbokk yi bu ñu sukkandikoo ci xadis boobu dañu xam ne jëw mooy ñu teg ci deru nit ki loo xam ne su ko déggoon wala mu jot ci wala mu fekkee ko dana ko metti te ba nga koy tudd di ko teg ci deram moom waa ji nekku fi moo xam nag li nga ko waxal te bu ko déggoon wala bu ci jotoon dina ko naqadi moo xam lu am la wala amut moo xam lu nekk ci moom la wala nekkul ci moom moo xam jikkoom la moo xam du du jikkoom waaw boo defee kon su fekkee li nga ko waxal lu am la yow mi ko ko waxal def nga bàkkaaru jëw su fekkee nag li nga ko waxal amut yow mi ko ko waxal li nga def moo gën a garaaw jëw ndax danga boole jëw ak sos ndax danga waxal nit ki lu ñaaw teg ko cib deram te jamono ja koy teg cib deram nekku fi muy jëw beneen bi itam nga waxal ko loo xam ne du jikkoom defu ko nekkul ci moom du comportement wam déjà kon sosal nga ko waaw yàlla nañ ci yàlla musal bu ko defee kon Euh, nit daal war na di moytu di teg lu ñaaw ci deru nit moo xam day jàkkaarloo moom di ko ko wax moo xam da koy jëw moo xam euh, lu ñaaw li mu wax lu nekk ci moom la wala nekkul ci moom waa ndax loolu yépp dafay porter atteinte à l'intégrité morale à l'intégrité morale de l'individu dafay porte atteinte à l'intégrité morale de l'individu maanaam yàq deru nit ki la da ngay profaner désacraliser nit ki waaw da ngay profaner ak sacralité am daal yaa ngi yàq deram yaa ngi wàcce personalité yaa ngi koy weddilu waaw te loolu itam gënul yonent bi salaam nee na kullul muslimi alal muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irduhu nee na jullit bu nekk war ngay fexe ba ñoŋalal sa mbokkum jullit ñett yi dee ko ñoŋalal deretam kon jullit wërta tuur dereti mbokkum jullitam vraiment ci ay caaxaan ñaareel bi mooy war nga ko ñoŋalal alalam kon jullit wërta jël alal wala ay bien yu kaneen moom te tegu ko ci yoon il faut mu teg ko ci circuit bu normal voie bu normal waaye jullit bi itam war naa ñoŋalal mbokkum jullitam ab deram muy honneur am dignité kon waroo di teg ci sa deru mbokkum jullit loo xam ne léeru la wala lu ñaaw la wala loo xam ne day wàcce dara jaam kon islam mi ngi prôné à ce que nit ki li ñu tuddee la vie ndax dundu dafa nekk lu sacré lu sacré waaye islaam mi ngi prôné à que ñu protéger nit ki ay biens nga xam ne sañoo jël bien wu nit ki te tegoo ko ci circuit bu légal waaye islaam mi ngi prôné à ce que ñu protéger nit ki li ñu tuddee intégrité morale waaw intégrité physique ba ak morale waaw islaam bëgg nañu sàmmal ko nit waaye bëgg nañu protéger nit ki ay bien kon islaam mooy diiney kaaraange mooy diiney sécurité waaye mooy diine jàmm mbokk yi ku tudd jëw tudd rambaaj rambaaj nag mooy nga jële wax ci masamba yóbbu ca ma demba wala nga jële wax ci waa dëkk bi yóbbu ca waa dëkk bee wala waa kër gi yóbbu ca waa kër gee te lañ ca jublu mooy féewale yàq relation Masamba ak Mademba walla yàq relation waa dëkk bi ak dëkk bee walla yàq diggante waa kër gi ak waa kër gee kon moom jikko ju ñaaw la te itam lu mën a indi musiba la ci ab société nag wax dëgg yàlla waaw ndax day jëmbat ak noonu ak bañante koo nettali lu ñaaw lu ko kaneen wax rekk daal dinay bañ Euh, kaneen kooku maanaam boo nettalee Masamba lu ñaaw loo xam ne nee nga ma Demba ko ko wax Masamba kat bu téyeyut day daal di noonoo ma Demba da koy daal di bañ te su ko bañee rek da koy wan ma Demba ma Demba itam da koy daal di jéem a wan ne gënoo euh, gore gënoo maa am fulla gënoo fonk sama bopp daal di koy def lu ni mel seen relation yàqu seen jëflante dakk loolu baaxul bu ko defee kon yàlla suñu boroom subhanahu wa taala dafa condamné rambaaj ca maanaam da ko ñaawlu bañ ko ragalloo ko dawlooñu ñu ko loolu laa bëgg wax daf ne wala tutia kulla xallaafin mahin hëmmaazim mashaa'im binamim mannaain lil xayri muctadin athiim utullim bacda dalika zanim waaw yàlla subhaanahu wa nee na dafa condamné ay feene képp koo xam ne dafay waat waat yu woyof a woyof maanaam day wax lu dul dëgg ba noppi ñeme koo waat am na de waaw am na ñoo xam ne seenu waat doo ci xàmmee lay dëgg ak la dul dëgg ndax ni ñu mën a lu wér nàññi lu leer nàññi lu leen wóor noonu lañ mën a waate lu leen wóorul kon ñiy woyafal ngiñ matuñu xarit waaye ñiy rambaaj itam matuñu xarit waaw lim na ay fee yu bari condamné ko waaye rambaaj gi moo ñu ci soxaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne am na sens de mesure ay waxam dafay yamoo dafay équilibré du wax lu ëpp mukk du wax lu manqué du wax lu ëpp du wax lu yées waaye am na yërmande joo xam ne yombut a tudd euh, euh, nit ne kii kat safara la jëm wala kii def lii safara la jëm waaye li mu koy bañ-bañ nag am na foo xam ne amut pexe wax na ko am na jëf joo xam ne nee na ku koy def ba faatu te bàyyiwu ko safara la jëm muy rambaaj moo tax mu ne Euh, laa yadxulul jannata nammaamun képp koo xam ne day jële wax ci nit yóbbu ko ci nit wala ci dëkk yóbbu ko ci dëkk wala kër yóbbu ko ci kër ngir féewale ñaari nit wala ñaari dëkk wala ñaari kër wala ñaari famille nee na kuy def loolu day saxe sax ci sax ci sax ci ba faatu te bàyyiwu ko kooku du dugaal du dugaal janna mbokk yi kon jëw ak rambaaj ñaari feebar la yu garaaw comme niñ ko waxee woon te itam ki koy def mën na cee jële musiba yu ne maanaam conséquences yi ciy juddoo yoo xam ne day dal ki koy def kiy jëw wala kiy rambaaj conséquences yu diis la yu yu yu la waaw ndax mën naa jur mbugalu bàmmeel mën naa jur itam xisaab bu metti mën naa jur safara mën naa jur ñàkkuk àdduna ak ñàkkuk àlaaxira waaw mbugalu bàmmeel gi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi na ci lu leer mooy xadis boobu nga xam ne masoon nañ ko waxtaane ci beneen contexte mooy biñ ne marra rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi qabrayni fa qaal innahuma la yucadabaani wa ma yucadabaani fi kabir amma axaduhuma fa kaana laa yastatiru min albawli wa amma al axaru fa kaana yamshi binnamima yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa romb ci ay benn làkk làkk boo xam ne mën naa am ay tool la wala ay jardin wala xur fekk ay bàmmeel la nga fa yoo xam ne ñu bari yëguñu woon ne fii am na ñuñ fi suul waaye ginnaaw nag yonent bi sallallahu alayhi yàlla mayoon na ko mu mën a dégg li ci bàmmeel yi ndax li ci bàmmeel yi moom euh, nit ak jinnee ko munta dégg waaye mala yi dañ koy dégg fas yéeg xar yéeg bëy yéeg yu mel noonu léeg nga Eh, gis xar mu nekk ci armeel di taxawaalu wala béy muy daw ba si yàgg mu ne bërit tëb wala mu jëkk-jëkk rek ne tekk tiit daam yi muy dégg rek loolu nag xajul ci bopp nit ak jinne bu ko nit ordinaire doon dégg wala eh, jinne ordinaire eh, tabaarakallah duñu tala lekk duñu tala naan waaye yonent bi sallallahu alayhi nag mayoon na yàlla mayoon na ko mu koy dégg ba noppi du ko wàññi dara du ko yàqal dara moo tax mu romb ci bàmmeel am ñaari mu romb ci benn xu wala benn làkk daal fii de ñaari bàmmeel yi fi nekk ñi fi tëdd ñi ngi leen di mbugal wala boog su fekkee ëpp na ñaari bàmmeel am na ci ñaari bàmmeel yoo xam ne ñi ci tëdd moom ñi ngi leen di mbugal waaw ñu ne ko waaw lu ko waral mu ne kenn ki da daan tuur ndox te du moytandiku sobe si da tuur ndox te du moytandiku sobe si loolu nag mën nañ cee déggi mën nañ cee dégge lu bari soit da daan tuur ndox euh, sobe si bàyyikoo ci moom di tis di dalaat ci ay yéreem wala muy dalaat ci yaramam wala sax muy tuur ndox li muy def liy génn ci moom laata muy génn ba jeex tàkk mu daal di jógaat takk tubéyam am lu des loo xam ne génnagul ba jeex mu tis ci ay yéreem wala mu taq ci yaramam ndax ñu bëree bëri bu ñu tuur ndox pression bi bu jeexee rek ni muy xelleeg doole bu jeexee rek dañu daal di bëgg a jóg takkaat seen tubéy te fekk na am na matukaay yu ñu war a jël jàngale woon nañ ko duñ ci ñëwaat bu ko defee nag loolu day juru mbugalu mbugalu bàmmeel kon tuur ndox di sàggan ba doo moytu sobe si nga xam ne sobe si day dellu di takkaat ci yére yi wala yaram wi dana waral ki koy def ñu mbugal ko ci bàmmeel mu ne ñaareel bi keneen ki da daan rambaaj moo waral ñu koy mbugal ci bàmmeel di jaxase nit ñi rek mbokk yi jëw ak dafay waral day xotti ormay jullit jëw ak rambaaj day xotti ku koy def rek yaa ngi xotti ormay jullit te moo ne day yonent bi sallallahu farataal na ci kenn ku ne mu sàmmal moroomam ormaam mu ñoŋalal ko ormaam lu am am solo la hmm? ko ko def rek yaa ngi profane sacralité dignité humaine ah dafay porter atteinte à la dignité humaine kenn ku ne da nga war a sàmmal sa moroom dignitéem waaye soo ko jëwee rek wala nga rambaaj ko nag yaa ngi xotti war maam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ca xijjatul widaa muy ajug tàggatoo ga ne fa inna allaha qad xarrama wala sax waxul qad xarama fa inna allaha xarama calaykum dimaakum wa amwaalakum wa acraadakum ka xurmati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada mu ne yàlla subhaanahu wa taala nee na kenn ku ne war naa sàmmal moroomam ñetti xorma yi hmm? waaw ñetti ñag yi dafa am ñag ñetti ñag yoo xam ne kenn ku ne yàlla ñagal na la ko bu ko defee nag kenn ku ne war nga koo sàmmal moroomam ba nga xam ne loo yab-yab waa ji loo miin miin waa ji bul ko bëttal ñetti ñag yi benn ñag bi yàlla mi ngi koy sàmme deret mi ngi koy sàmme bakkan ñag bi yàlla di sàmme bakkan kon kenn wërta faat bakkan wala mu agressé nit ki wala mu blessé ko tuur deretam deret dafa sacré am na ñag bu yàlla di aare deret kenn wërta bëtt ñag boobu moo tax di xaañ nit ki wala di ko gorjaasi wala di ko jàmpaaka wala di brandir ay armu jëme ko ci nit kenn du ko def ku koy def rek yaa ngi xotti yaa ngi bëtt ñag bi nga xam ne moom la yàlla di aare deret am na ñag boo xam ne itam yàlla da koy aare alal kon nit loo ko miin miin bul dem ci ab dencam waaw bul dem ci di di léeg-léeg ñiy yëngu ci wàll wàllu criminalité di dugg ci compte banque jàmbur yi di sàcc rek yéen a ngi bëtt ñagu alal de bàyyi ba di ngeen dajji butigu jàmbur dajji pharmacie yi dajji station yi dajj banque yi dajji magasin yu mag yi yéen ngi yéen a ngi bëtt ñag bi yàlla di e, sàmmi alal de baaxul waaye itam der muy honneuru nit ki dignité nit ki yàlla da ko da ko sàmm ci ñag ñag boobu bu ko kenn bët bëtti ñagub dignité nag ñag bi yàlla di aare di yi doomu aadama mooy jëw wala rambaaj te nag nee na ni yàlla aare ñetti ñag yi wormaal ko mooy ni mu wormaale bésu arafa wormaale ko weeru tabaski waaye wormaale ko dëkk bii nga xam ne mooy màkkatal mukarrama kon képp koo xam ne weeru tabaski buggoo cee def lu ñaaw képp koo xam ne bésu arafa màggal nga ko buggoo cee def lu ñaaw képp koo xam ne màggal nga màkka ay waay waay waay bul jëw bul rambaaj bul jël alal joo moomul waaye bul uh, tuur dereeti gor dereeti doomu aadama mbokk yi kon jëwa ngoog trahison la wor la xotti wor ma la waaye yaa porte préjudice à toute la communauté musulmane yaa ngi lor jullit yépp yow mi jëw waaw jëw dey yóbbal bu bon la ku koy def yobbal ñam la woo xam ne tooke la képp ku ko fas yéenee dunde waaye ak coxarte la waaye ak naaféq la waaye itam ku koy wettilikoo sab jotaay jàppal ne jotaay bu xaraama ngoog am na ñoo xam ne feeg mënoo jëw rek bu ko doo mën a bokk seen jotaay waaw te boo yëgee ne ñii ay jëwkat lañu ngay teggi sab jotaay bu yàggee sax ñoom ñooy baaxal seen bopp bonal la ne moom day dafa yëg boppam moom day faalewul nit ñi moom de dafa yaakaar ne moo gën nit ñi léeg sax nga dem ba ñu ne moom de dafa seytaane waaw dëgg la nag yow booy daw jotaayu jëwkat jërul sax nga ciy boole wax yow moytul rek waaye jërul sax nga naan man de fee duma fa toog ndax dañuy jëw wala nga naan man de duma toog ci grand place ndax grand place yu bëri dañuy jëw ndax su boobaa itam day indi ay règlement de compte rek te jëru ko ci yow moytul rek waaye nit ñi itam dañoo renverser tendance yi ba nga xam ne ni ñuy apprécier mbaax daal am na beneen baromètre bu ñu natteg mbaax ba nga xam ne société bi léegi Euh, en général bu ngeen di xool au fur et à mesure que le temps passe lu jamono gën a dem rek day mel ne ñi amee mbaax sax duñ leen ko moomale daanaka ñi amee jikko yu yées rek ñoom la ñuy tagg di leen moomaleeg mbaax ndax lan société bi pour nga intégré pour nga intégrer faaw nga adapté wu ci rythme bi ñuy doxee te rythme bi ñuy doxee itam da cee bari loo xam ne islam da koy condamné waaw ndax ñoom li ñuy wax mooy. diwkat dafay yëg nit ñi diwkat dafa am itte diwkat day nemmeeku nit ñi diwkat ay waay aka ubbeeku aka bëri kaf aka bari waxtaan te waxtaan yi leen di bégal nag yu ci bëree bari faawu jëw da ciy am yoon wala wax lu dul dëgg wala rambaaj soit nga def ko wala nga déglu ko wala ñu koy def ngay bàyyi noonu te ñett yi benn ci baaxul def bi baaxul déglu bi baaxul ñuy def ngay bàyyi ca biir itam baaxul te yooyu la ñu baaxali nit ci jamono ji waaw tax na yàlla baal jamono ji daanaka ñi ñuy gën a faral di tagg naan dañoo baax ak dañoo woyof ak dañoo bëgg nit mooy ñi adapté wu ci rythme bi nit ñiy dundee te rythme bi nit ñiy dundee lu ci bëree bari islaam sax da koy ne dignité humaine da koy ne vraiment doy na waar daal waaw doy na waar lool waaye ñu jéem a sàmm suñuy diine rek waaw la ma déggoon kenn ci politiciens yi doon ko wax mu di taala si la yàlla na yàlla sàmm ko te sàmm ñu baax ñépp sama mbokk yépp mu ne maamam dane ko woon bul ragale wéet ba tax ngay wéttalikoo lu dul dëgg lu am am solo la wax bu gàtt la waaye am na solo mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi ñaawlu na jëw ñaawlu na rambaaj ci ay wax yu bëree bëree bëree bëree waaw bu ko defee itam yee nañu conscientiser nañu ci baakaar bi nekk ci jëw ak rambaaj ak mujj gu ñaaw gi nga xam ne moom lay jural ki koy def kuy jëw a karambaaj fu ñaaw lay mujje yonente bi salaam nee na lamma urija bi marartu bi qawmin lahum agfaarun min nuxaasin yaxmisuuna wujuhahum wa sudurahum fa qultu man haulaai ya jibril qaal haulaai alladina yakuluuna luxuuma annaas wa yaqacuuna fi acraadihim lii mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ko gis ba mu reñaanee reñaan bàyyi ko ci masjidul haram dem ca masjidul aqsa yéeg wutali asamaaniya waxtaane nañ ko fi ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ba mu rañaanee yi nga xam ne e, dugg na ci biir aljana visité ko waaye yërndu na safara ba gis la fa nekk yépp nee na moom yonent bi sallallahu alayhi ba muy yërndu safara de gis na ay nit ñoo xam ne dañ leen defal ay we we we yiy nekk ci baaraam we yoo xam ne ñi ngi ko defaree përëm ay ongle yoo xam ne ci përëm lañ ko defaree nee na mu doon lu ñaw mel na ay paaka ay we yu ñaw ni paaka nee na lan la ñuy def ci seen weya ña ngay ña ngay gajji seeni xar kanam ña ngay gajji di xosi seeni xar kanam di gajj seeni xar kanam di gajji seeni dënn waaw di dagg seen yàpp yaram di ko lekkaat dañuy lekk seen bopp ñoom ndax ay weyu përëm we we yoo xam ne comme paaka ñuy gajj seeni xarkanam di dagg yi lekk di gajj seeni dënn yonente bi sallallahu alayhi daal di laaj jibril ne ñii ñooy ñan ak ban bàkkaar moo leen jural toroxtaange lii ñuy dund yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñi nga xam ne ba ñu nekkee ci àdduna dañ daan jëw rek di yàq deri gor yi di jëw rek di wax lu ñaaw ndeysaan moo tax we yi leen yàlla defal ñuy xusi seen yaram di ko lekk symbole la day symboliser ne euh, ba ñu nekk ci àdduna bàkkaar bañ daan def moo lekk medd ñooyam jële nañ ci Aïcha radiyallahu anha mu ne dafa am benn bés may wax ak yonente bi sallallahu alayhi waaw di wax ak moom ba si yàgg ma ne ko xasbuka min safiyata kada wa kada qaala baadu ruwaat taani qasiratan waaw qaal fa qaal sallallahu alayhi wa sallam laqad qulti kalimatan law muzijat bi maa'il bahri la mazajathu dañuy wax ne Aïcha radiyallahu anha nekkoon kenn ci soxna yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa ba am lu mu wax ci sofiya am na lu mu wax ci sofiya daal waaw loo xam ne daal day mel ne kuy saboote euh, sofiya ci gàttaayam <laughs> di wax ne sofiya ndaama la ku gàtt la wujjam la tudd naa wujjam te nee nañ kuy ku sa wujj di sëlam doo seet am na ñu ko wax waaw waaye ba mu waxee ci Safiya loo xam ne day mel ne ku koy saboote ci gàttaayam ak ndaamawaayam waayam yonent bi ne ko ay waaye li nga wax ñaaw na ne ko li nga wax de danger bi ci nekk egg na ci buñ ko defoon sunguf bu nekkoon lu mel ne sunguf maanaam poudre de mil moom la ñuy tuddee sunguf xam naa ne mën naa laax géej gi waaw mu ne ko yow lii nga wax daal bàkkaar la bu rëy boo xam ne buñ ko soppali woon sunguf de man naa laax géej gi allahu akbar mbokk yi ginnaaw nag sayyidatuna Aïcha ak li muy tedd tedd ak li muy bokk bokk ci yaayi jullit ñi moom la yonent bi sallallahu alayhi di artoo ci jëw kon rawatina ñun waaw kon ñun li ñuy wax moo gën a garaaw moo gën a yées moo gën a ñaaw moo gën a sikk moo tax salafu saalix bi ñu xamee ne jëw lu garaaw la xam danger bi muy jural société bi waaye danger bi muy jural kiy jëw ëllëg yowmal qiyaam ñoom ci lañuy jël seen yitte yépp ñu jaayal ko ci nan lañuy teree seen bopp jëw ci yan jëf lañuy tënk seen bopp ba mu jural leen ñàkk jot ba duñ tale jëw nan lañuy fexee daal ba xañ seen bopp jotug jëw ñoom biñ yëgee ne jëw lu xaraam la lu mën a jur mbugal la dañ ne daal ñun nañ fexe daal ba ñàkk jot nañ fexe ba tënk suñu bopp ci ay jëf yoo xam ne dinañ ñàkk jot ba duñ tala jëw waaw moo tax nag moo am lu ñu sas seen bopp ci jàng alquran sas ko seen bopp ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci alhamdulillah allah la ilaha illallah allahu akbar ay azkar ak jàng xam-xam ak di ko jàngale ak liggéey lu baax ak tereb safaan bari na jotaay yoo xam ne ña fay daje dañuy jëw te moo ne day kenn ku ne am nga compétence bu sa moroom amut su fekkoon jotaay yi ki fer ijji day jàngal ki ferul ijji ngir mu fer ijji ki mokkalul alquran ki mokkal alquran di jàngal ki mokkalul ngir mu mokkal ki xam faratay julli di ko jàngal moroomam mënise bi di jàngal ñi xamul menuisier yi nu ñu daaje lal wala armoire baykat bi di jàngal ñi xamul bay nan la ñuy bayee sàmmkat bi di jàngal kenn ku ne moo ne am nga expérience ak compétence bu sa moroom amul bu ñu doon def échange nag ci compétence yu wuute yi duñ tala jëw moo ne yomb na de yomb na waaw waaw boo defee kon ñoom saxaaba yi dañoo fexe woon ba xañ seen bopp jotug jëw moo tax bu ab kàccoor ñëwaan ci ñoom wala yàqkat di leen nettali lu ñaaw ci seen moroom dañ koy artu dañ koy artu loolu nag moo ñu tey suñ jamono ji kuy jëw ñu artu ko waaw léeg-léeg sax kay dañ naan waaw maa ko xam boo ne waa ji sàcc la pour pourtant ki lay déglu amu ci lu ko leeru moom kay wax nga dëgg ndax léeg-léeg ñu tëdd ba guddi mu jóg waaw wax nga dëgg kay léeg-léeg ma taseeg moom min wi ah waaye yéen bu demoon cant nag wala gàmm bu bu demoon ngonnali ngonnalal xaritam ba guddee fa nag mais hypothèse yooyu di nga ko teg de dañu xool yi koy taqal rek lu négatif waaw ndeysaan euh, dafa am benn waay bu ñëw ci Amr ibn Ubayd waxuma Umar de Amr ibn bu ñëw ci moom ne ku ñuy wax aswari moom de fu mu toll fu mu toll fu mu toll day yëkkati lu ñaaw mu koy teg sab der yi daal jotaay bu mu nekk sab du fa rafet fu mu toll daal jotaay bu mu nekk rek tabaarakallaahu day tekki sa der bi lu ñaaw dafay yàq sab der amru daal di tontu ki ko wax lu ñaaw loolu ci aswar yi ne ko yaa haada maa raayta xaqa majlisi rajuli xiina naqalta ilayna xadiisa wala addayta xaqi xiina aclamtani can axi ma akrah walakin qul lahu inna almawta yacummunaa walqabra yadummunaa walqiyaamata tajmacunaa wallahu yaxkumu baynanaa wa huwa xayru alxaakimiin Amru bnu Ubayd ba ko waaje waxee ne ko aswari yi de fu mu toll jotaay bu mu nekk daf fay yàq sa der amru ne ko ay waay yow sama waa ji hee hee yaa ngi perturber sama quiétude waay yaa ngi couper sama appétit yaa ngi yàq sama dalwaay maa ngi doon dund dund gu neex nga ma koy bëgg a yàqal ndax man bugguma ko may netti lu ñaaw lu ma nit waxal ne ko yow benn euh, sàmmoonte woo àqi jotaay de ah, waaw ne ko yow bëtt nga wor may àqi jotaay maanaam yow ki ngay nettali lu ñaaw du ci jotaayam nga toogoon mu wax lu ñaaw ci man nga ma koy nettali moo ne àq yi nga xam ne ñoom la yonente bi sallallahu alayhi waxoon ne ku toog ci jotaay war nga koo sàmmal jotaay ba de mooy euh, waa jotaay ba la wax waroo koo tuxal di ko nettali ku ko fekkewul lañu wax ci lu ñaaw waaw kon yow xotti nga ormay ña nga bokkaloon jotaay muy benn ñaareel ba itam mooy violé nga sama droit xotti nga sama orma ndax lan moo ne lu ñaaw liñ ma waxal de kama ko waxal man soppoon naa ko kon boo ma bàyyi woon ci kumpa gi cofeel googu di continuer moo gën nga di ma ko wax te doomu aadama dafa matadi koo nettali lu ñaaw lu ko moroomam waxal rek mën naa fa mu tegoon ka ko waxal lu ñaaw du du ko fa tegati kon mënoon nga maa bàyyi ma koy wormaal rek waaye boo demee nee ko nee ko bu waxatee lu ñaaw wala mu jëwati waar ko ak képp koo déggati mu jëw rek nee ko daal déegi moom du ñu fi bàyyi du fi bàyyi kenn ci ñun ñun ñëpp faatu dee du épargne kenn ci ñun bàmmeel itam kenn du ci mujj yowmal xiyaam rendez-vous la bu nga xam ne kenn du absenté ñun ñëpp ay daje te yàlla dinañu àtte tateb yàlla nag moo gën a mat àtteb nit moom àtte provisoire la rek waaw àtte provisoire la dañuy wax ne am na benn waay itam bu ñëwoon ci Abdul Malik ibnu Marwan pour wane ne saxaaba yi amoon nañ courage boobu ku daan ñëw di jëw di yàq der ñu artu ko waa ji dafa ñëw ci Abdul Malik ibnu Marwan ne ibnu marwaan mu ne ko labbayka wala naam mu ne ko dama laa bëgg a benn secret de dama dama laa soxla woon daal am na lu ma la bëgg a wax alxalifa muy ibnul malik wala abdul malik ibnu marwaan wax ñi nekkoon ci wetam ne leen may leen ma kii dafa bëgg a wax man te xam naa li muy wax ak man lu discret la loo xam ne suñ diggante la war a yem waaw bi ñépp demee ba Abdul Malik ibnu des ak waa ji Abdul Malik ku am expérience la ku yàgg ci jamono la waaye ku xam société bi mu doon dundal la mu xam ne waa ji daal jëw dong dong dong moo ko tax a jóg bëgg jëw ak bëgg yàq der dong moo tax mu naan xalifa bi dama laa soxla waaye bi ñëpp demee ba Abdul Malik wéet ak waa ji xam nga lu mu ko wax dane ko su fekkee danga maa bëgg a tagg bu fekkee bëgg maa tagg dong ak bëgg maa dóor bëgg a raay ragg sama ginnaaw di ma tagg di wax samay jaloore bu fekkee looloo la tax a jóg jërul nga may tagg ndax li nekk ci yow xam naa ko maa la gën a xam li nekk ci yow bu fekkee lu baax nga ma yéene xam naa ko boo ma yéenee safaan xam naa boo may respecté respecté lu te nekkul ci yow xam naa ko boo ma respecté itam xam naa ko kon bu dee ay tagg rek moo tax nga naan dama laa soxla woon bu sa kàddu jib de jërul ngay ñeppi sa gémmiñ bul tijji sa gémmiñ ndax man tagg yëngalu ma boo may tagg di ma waxal lu baax itam di ma yéegal ba ci daraje yi yonente te fekk tegoo ma fenn xam naa ko de muy benn bu fekkee itam danga ma bëgg a wax lu dul dëgg maanaam su fekkee danga ma indil ay kàddu yoo xam ne du dëgg man duma jéggal ab fenkat soo fi waxee lu dul dëgg dinaa la teg peine bu sévère sanction bu sévère su fekkee itam jëw moo tax nga naan danga maa soxla danga nga fee bëgg a yàq deru su gor jëw sama nopp yi du nopp yi déglu jëw de sama nopp yi yaruma leen ci dégg déglu jëw xam nga lu waajo waxa lam ca tegal abdul abdul malik ibnu waraan dana ko ndax may nga ma ma génn abdul malik ne ko waaw ci mu lay neex boo bëggee génn kay des na ci yow waaja daal di yolleeku ndànk ndeysaan daw ba fàtte dàllam ni ko gaa yi waxe xolal bii courage ak ki doon jëw ni ko abdul malik di siyaadee waaw waaw moom dafa ñëwoon ngir nara waxub safaan abdul malik ne ko ee eh, léegi danga ma danga sàkk woon ci man ma éloigné ñi nekkoon sama wet xam nga éloigné naa leen ba ñoom ñëpp daw ba ñëpp ñëpp ñoom ñëpp dem may ñu ndax loolu la wax daa ñëw ci Abdul Malik ne ko yow laa soxla woon de te xam naa ne li ma bëgg a waxtaan ak yow waxtaanu secret la suñu diggante rek la war a yem Abdul Malik wax ña fa toogoon ne ne ne leen may leen ñu ba ñëpp demee Abdul Malik desag waaja ne ko eh, su fekkee danga ma nar a tagg jërul ngay ñeppi sa gémmiñ jërul ngay ubbi sa gémmiñ ndax man ay tagg yëngalu ma ndax boo may waxal lu baax di ma wan lu baax ba noppi safaan ba nga ma wannal boo may wan lu baax ba noppi wannal ma safaan ba xam naa ko booy wax lu nekkul ci yow xam naa ko kon jërul nga may tagg su fekkee danga ma fay nar a indil waxi sos wala waxi waxi la ca ginnaaw dëgg man du ma baale fen de ku ma fen ku ne dinaa la teg pen bu metti dinaa la teg daan yu metti muy sanction yu sévère bu fekkee nag danga ma fay nar a indil waxi jëw itam samay nopp yaruma ko ci dégg jëw waaja ne ko ah, ndax may nga ma ma génn mu ne ko waaw waaja daal di daw ba fàttee dàllam dafa naroon a jëw rek mbokk yi kon nañu am courage boobu ku nar a jëw ñu fexe ba découragé loo ko waaw waaye kuy jëw ki koy dégloo ko may doole dama wax ne bu déglukat yi tàmmaloon ñi leen di wax samay nopp yaruma ko ci jëw léegi jëw xew yi ñiy déglu buñ tàmmoon buñ tàmmaloon ñiy wax ak ñoom samay nopp yaruma ko ci jëw kon léegi jëwkat yi duñ amati fuñ yàkke seen nàkk kon loolu nañ ko gën a bàyyi xel mbokk yi euh, salafu saalix ñi ngi noonu ñu mënoon a daw jëw lañ waaye itam ñu ko mënoon a dawloo lañu waaw kon nag euh, jëw bala moo dagan mooy dafay nekk li garadin shar'i maanaam buñ ko defee ci cadre luy liggéeya sharia foofu sharia mën na koo mën na koo autoriser muy lan lu mel ni kii kuy feeñal ay tooñkat waaw kuy feeñal tooñkat maanaam al ma yu'linul mazlumu an zulmi maanaam kuy kalaame tooñkat ñu tooñ la ñu sàcc sa alal ngay ngay kalaame ki sàcc sa alal ñu agressé la ngay kalaame ngay porte plainte ki la agressé booy kalaame ku la tooñ faaw nga ñëw ne diw dafa sàcc sama alal wala diw dafa ma agressé te fa nga koy waxee euh, mën naa am diw nekku fa loolu islaam autorisé na ko wala ñu lay seedeloo ci wàllu nit di bëgg a dugg ci ngoro wala jigéen am ko koy ngoro ñu lay seedeloo ba xam euh, jigéen ji waa ji ngoro ki koy ngoro di la laaj jikkoom loo ci xam rek nga ko wax waaw wala jigéen am ko koy ngoro moom jigéen gi xamul jikkoy ku góor ki mu ñëw ci yow yaakaar na yaa ko ko gën a xam mu lay laaj seedeel te nga yem ca la seede ba laaj te la ngay wax nanga ko natt ba mu dëgg rek waaw moo ne wala taktumu shahaada wa man yaktumha fa innahu aathimun maanaam nit bu ñëwee ci yow di la laaj jikkoy nit ci cadre dafa bëgg a jëflanteeg moom ci wàllu commerce wala ci wàllu business wala ci wàllu sëy lan ca xam nanga ko seede waaw ndax lan seede dëgg loola islaam moo ko santaane bu fekkee am nga ca xam-xam euh, dinaa ci joxe misaal soxnas abu sufiyaan nu mu tudd du mooy hind hind bint utba dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko inna aba sufiyaana rajulun shaxiixun rajulun shaxiix ku nay walaysa yuctiini maa yakfiini wa waladi illa ma axadtu minhu wa huwa laa yaclam fa qaal sallallahu alayhi wa sallam xudi maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf Hind di soxna Abu Sufyaan dafa ñëw ci Yonent bi sallallahu ne ko Abu Sufyaan day mooy sama boroom kër waaye dafa naya naya naya nay ba moo gën a nay kaay ñu nay duma jox dépense bu doy li may jox daal bu ma ci toggee añ wala reer duma ma suur maak samay njaboot di joxe xotti bu mat njëgu xotti bu mat ba tax na xam naa ne dafa nay waaye am na ko moo tax ba léeg-léeg dama koy ginnaawu bu génnee rekk ma dem ca mbubb ma mu wékk làmb poos ya jël ci yokke ci depanse bi wala ma jëndal ci xale yére ndax loolu dagan na xaraam na wala xaraamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ginnaaw moom dafa nay te dundal la yaag say njaboot moom la war te du la jox lu mat jaadu na nag boo jekkoo alalam nga jël ci waaye nang ca jël lu jaadu loo xam ne rek day yem ci mottili dépense bi wala mottili xotti bi waaye bul ci jël nag bay jël looy yóbbe ca natt yaag teg baag avec yaag kàllbaas yeeg yooyu jigéen ñi xam loolu nag boo defee kon nit buy dugg ci ngoro bu la laajee man nga cee wax ci cadre seede ndax yonent bi sallallahu kat bi hind bint ba ñëwee ci moom hind bint utba ñëwee ci moom di kalaami abu sufiyaan booba kat ba muy wax abu sufiyaan nekku fa te muy wax ci abu sufiyaan sikk la waaye lan la dafa am lu ko naqari muy kalaami bëgg ñu fajal ko ko foofu jëw googu bokkul ci xaraam waaw kon nit buy dugg ci ngoro wala muy bëgg a jëflanteeg nit ci wàllu commerce wala business wala ñuy taxawal société mu lay laaj ne la waaw kii may bëgg ngoro ndax xam nga ci moom lii ak laa ndax dal na sa xel wala déet la nga xam ci moom waxal kii may bëgg a seqal ubbi boutique bi wala société bi ndax xam nga ci moom lu dal xel wala déet la nga xam ci moom waxal waaye na nga yem ci wax la nga xam ci moom te la ngay wax ci moom itam na yem ci cadre rek lu jëm ci business ba wala ngoro ga waaye bul dugg bul xaabaabal nag di génn domaine boobu waaw bu ko defee itam mbokk yi ki nga xam ne day manifester ak mooy yàlla day def lu ñaaw di ko manifester kooku itam euh, bu ñuy ñaawlu loolu muy def loola du jëw waaw bu ñuy toog di ñaawlu ñuy lekk alali réew mi di ñaawlu itam agresseurs yi li ñuy def di ñaawlu reykatu nit yi li ñuy def ah wala moykatu yàlla yi bokkaalekat yi ñi nga xam ne dañuy xotti war may alquran di xotti war may yonent bi sallallahu alayhi di xotti war may jàkka yeeg jumaa yi ñuy lu lu ñuy def su boobaa mën nañ koy ñaawlu fu ñu nekkul di wax musiba yi ñuy def te su boobaa du dugg ci jëw ndax dañuy wax rek ci cadre nan la ñuy def ba indi solution ba indi saafara ci lu ñaaw loolu waaw waaye itam découragé loo képp ku ko naroon a def mbokk yi bu dee rambaaj nag ginnaaw jëw ak rambaaj la ñuy waxtaane moo gën a garaaw jëw moom ndax non seulement da ngay wax ci ki yóbbu ko ca kee ngir jubloo yàq seen diggante su ko defee mën naa jur fitna jur bañante euh, jur yitam euh, diggante yu ñagas diggante yu ñagas indi ay yàqu-yàqute ak i musiba ay yàqu-yàqu aki i musiba waaw kii rambaaj itam euh, mën naa fekk ñoo xam ne dañoo meloon ni mburoog soow mu def leen ni safaraak caas mu def leen ni muus jinax ab rambaajkat mën naa yàq ngoro mën naa tasub sëy ab rambaajkat mën naa indi guerre diggante famille ak diggante kër kër diggante njaboot ak njaboot diggante réew ak réew waaw rambaaj moo tax foo fekk rambaajkat jëw la ab jëwkat la maanaam rambaaj day ànd ak jëw jëw nag mën naa ñëw moom kaseta du ànd ak rambaaj waaye rambaaj li tax mu yées jëw mooy non seulement da ngay wax lu ñaaw te fa nga koy waxee ka nga jëmale lu ñaaw la nii ko fa waaye danga cee jubluwaale ki ngay nettali lu ñaaw loo xam ne kaneen wax na ko ko wala nee nga kaneen wax na ko ko euh, da nga cee jublu digganteem ak ka ko wax lu ñaaw loolee ñagas xaritoo ga tas relation ba yàqu waaw bu defee kon loolu nañ ko bàyyi xel wor la trahison la yàlla subhaanahu wa daal tere nañu lool rambaaj waaye tere nañu itam ñuy dëggal ab rambaaj kon ku ku ñu wax lu ñaaw lu la diw waxal ba tax nga bàyyi ko ngir lan nettali guñ la nettali lu ñaaw luñ ne moo la ko waxal nga bàyyi ko yow la neex waaye soo jëfe woon aay bi yàlla ne yaa ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqum bi naba in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahaala fa tusbixu ala ma faaltum naadimin ca xujuraat suñ ko jëfee woon kon dama ne diggante yi dina ñoŋ relation yi dina nekk ci sécurité waaw yàlla nee na bu ab rambaaj ñëwee ci yow di la nettali ci sa xarit lu ñaaw ngir bëgg a tas seen diggante ngir bëgg a yàq seen relation na nga am xel ñaar calam la wax nanga am dut na nga ne waaw ah kii daal li mu wax damaa jàpp ne day sos rek wala dafa juum rek walla dafa jaawale rek wala dafa desee dégg wax bi rek nanga teg ay ngànt ak lay ak i prétexte yoo yoo jéggale euh, sa mbokk moomu ñoo ñu bëgg a yàq sa digganteeg moom waaw man nga ne kii daal xam naa dafa desee dégg wala kii daal dafa juum rekk wala dafa jaawale rek waaye diw moom lu baax rek la ma yéene buñ doon def loolu benn diggante du yàqu saa yu la bëggee foog loolu ñaaw ki sa mbokk rekk nanga foogal sa bopp lu rafet ca mbokk mooma mbokk yi kon nañu ragal yàlla te xam ne jullit dëgg-dëgg bala moo matub jullit faawu mbokki jullitam yi mucc ci ayu làmmiñam ak ayu loxoom mu sàmmal leen seen intégrité physique ak seen intégrité morale kii gàddaay dëgg-dëgg gàddaay gi yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi gërëm ko nekkul nga gàddaay jóge ci réew dem ca beneen réew de wala dëkk dem ca beneen dëkk de wala quartier dem ca beneen quartier waaye gar gàddaay bi yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi gërëm ko mooy gàddaay lu xaraam waaw ndax dañuy wax ne man nammalaka namma alayka dégg ngeen man nammalaka namma alayka képp ku jëlee ci sa mbokkum jullit wala sa morom wala sa xarit wala sa dëkkandoo wax ju ñaaw indi ko di la ko nettilil kooku ku jara méfiyewu la ku jara ci mbiram la ndax lan ni muy jëlee lu ñaaw ci ma sàmba wala ma demba di la ko nettilil saa yoo rëccilee jenn wax ju ñaaw jëme ko ci ma sàmba wala ma demba faawu mu nettili ko ma sàmba ak ma demba ndax lan ginnaaw tax su diggante lay bëgg kay nu mu gën a ñaawe rek dàqal ko ca wa man naqala laka xabara suu'in sa yanqulu anka mithla waaw képp ku lay nettali information bu ñaaw rek moom itam bu diggee ci yow information bu ñaaw dina ko nettali ñamu jële ci ñoom lu ñaaw nettali la ko tabaarakallaahu kon nañu bàyyi xel di mesurer suñu kàddu rek lañu waxoon ne avant de parler il faut remuer la langue mille fois waaw bala ngay wax del sikki sàkk dee del del dee ko waajaat boo yëgee ne ngay bëgg wax lu waxu la nga wax waaye boo yëgee ne du lu waxu waaw ndax boo naree wax lu waxu wut rek am na lu la koy aaye ci sa domir sa conscience waaw mbokk yi yàlla moo ne yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ca Ahzab yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla na ngeen ma ragal te yar seen làmmiñ ba ci wax wax ju jub su ngeen yaree seen làmmiñ ci wax ju jub rek yàlla nee na dinaa leen yaral seeni cër tàggatal leen seeni cër ba ñu tënku ci jëf ju jub jëf ju baax jëf ju yiw waaye bu ngeen rëccilee ma baal leen ku topp yàlla topp yonente ba raw na àdduna raw àllaaxira kon mbokk yi defe naa ne jëw ak rambaay yi ñu ci wax buñ ci yemoon rek doy na kon nag mbokk yi nañu bàyyi xel la yàlla waxoon ne wala qad xalaqna al insaana wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa naxnu aqrabu ilayhi min xablil warid id yatalaqa almutalaqiyaan an ilyamini wa an alshimali qacid maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na maa bind doomu aadama xam ko ba jeexal ko xam gu ma ko xam ba jeexal ko moo tax waxuma li mu ñeppi ciw làmmiñam ci gémmiñam wax ko waaye laata muy ñeppi gémmiñ ga laata muy yëngal làmmiñ way wax ba mu koy nas di ko ràbb ci xalaat rek booba laa ko yëgoon nee na sa siddit bi nga xam ne moo jokkale sa xol beeg sa yaram li mu lay jege-jege maa la ko gën a jege te ngeen bàyyi xel ne dara échappé wu ma boole ay contrôleur ay superviseur muy ay malaaka kenn ki di raqib kenn ki di atid raqib féete ci mbaggu ndijoor bi atid nekk ci mbagu càmmoñ bi waaye boo defee lu baax raqib bind ko boo defee bàkkaar atid bindu ko contrôle boobu ak supervision boobu la malaaka yi di supervi superviser ak di la contrôler ah ku koy bàyyi xel du jëw de ku koy bàyyi xel xaw ma ku ko bàyyiwul xel ndeysaan kon mbokk yi ñu bokkal yàlla jëw ak rambaaj bàkkaar yu màgg màgg la bàkkaar yu rëy kuy lim kabaa'iru dunuub rek doo fi bàyyi jëw doo fi bàyyi rambaaj ndax ci bàkkaar yu mag yi lañ bokk soytaane nag moo koy jéem a rafetal ci suñuy bët di ko jéem a taaral di ko jox taar bu mu amewul ah waaw di ko jox taar bu mu amul di ko rafetal waaw ko defee nag di ci euh, dugal ñu bëree bëree bëree bëree bëree kooku piège la bu ñu seytaane di tegal waaw ko defee nag jullit bi di ci tooñ boppam ndax damay wax ne jëw wala rambaaj non seulement tooñ nga yàlla tooñ yonente bi tooñ ki nga jëw wala ki nga rambaaj wala ki nga digluloo jëw wala rambaaj waaye tooñ nga sa bopp ah rambaaj euh, kon dañuy wax ne rambaaj sax espèce la ci jëw te mooy espèce u jëw bi gën a bon xeetu jëw bi gën a bon waaw ndax intention ba xam nga kiy jëw sax day nettali euh, wax ju ñaaw ci nit wala muy yàq derus gor ngir bëgg koo dénigrer bëgg koo diaboliser waaye kiy rambaaj nag day nettali lu ñaaw jële ko ci nit yóbbu ko ci nit wala dëkk yóbbu ko ci dëkk wala famille yóbbu ko ci famille ngir lan non seulement wax na lu ñaaw ci famille ba wala nit ka wala dëkk ba waaye intention ba mu ci jublu muy lan yàq diggante nit ak nit ka wala famille ak famille wala kër ak kër wala réew ak réew wala koñ ak koñ wala dëkk ak dëkk tabaarakallah kon loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mbokk yi euh, jële nañ ci fa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yadxulul jannata namaam nammaam laa yadxulul jannata namaam kon nañ ko gën bàyyi xel rambaaj moom du jege àjjana sax ba fay dugg nag kooku muttafaq alayhi la buxaari ak muslim ñépp solo nañ ko waxoon nañ ko sànq kon nañu ragal yàlla te évaluer suñu bopp laata yàlla dañu évaluer nañ évaluer suñu bopp nañu xisaab suñu bopp nañu càmbar suñu bopp laata yàlla di càmbar suñuy jëf yowmal qiyaam nañu peser suñuy jëf fii ci àdduna laata yàlla di ko peser di ko peese yowmal qiyaam mbokk yi boroom xam-xam yi am na lu ñu leeral foofu laay tëjee muy euh, fan la jëw di dagane am na jëw yoo xam ne islaam maye na ko autorisé na ko joxe na ci permission ñu def ko te bàkkaar du ci nekk muy lan booy jàmbat sag tooñ maanaam bu ñu la tooñee ngay boole bu ñu la tooñee ngay boole ngay porter plainte police wala gendarmerie wala tribunal wala ca imam ba wala sëriñ ba wala chef de quartier ba wala chef de village ba ñu tooñ la ngay boole faaw nga wax li la naqari ca waaja faaw nga wax li nga meree waaja faaw nga wax euh, li la waaja tooñe te boo koy wax ma naam waaja nekku fa su boobaa du jëw de ndax dangay ngay kalaame foofu dagan na wala nga gis kuy def lu ñaaw loo xam ne day yàq jikko day yàq koñ bi day yàq diine ki nga xam ne kay wax dëgg yàlla moom jur gi nga jur gu réer ci dëkk ba moo ko sàcc nga xam ko nga feeñal ko dara ko ci loolu du jëw ki nga xam ne mooy tëddee xale yu ndaw yi ki nga xam ne mooy jaaykatu yàmbaa bi ak drogue bi di ko tasaare ci société bi di ci yàq jikko nga feeñal ko kooku du jëw loolu lu jar a bàyyi xel la waaw bu ko defee itam ki nga xam ne day laaj diineem di laaj nàngam bi xaraan na wala dagan na sama jëkkër de dafa maa def nangam ndax loolu araam na wala déet sama benn dëkkandoo de daf may defloo loo nangam wala daf may jaayloo nangam da dagan na wala araam na ngay laaj di leerlu sa diine ci loo xam ne da koo séq ak nit ngay laaj ba xam loolu araam naam dagan na foofu itam dara nekku ci mën nga cee mën tudd jëf ji jëf ji nga séq ak waa ji te du doon jëw te nga yem ca domaine boobu te lañ cay tudd nag na doon dëgg rek waaw ba léegi itam kilay lay kiy diisoo ak di la laaj xalaat ci loo xam ne yaa ko ci ëpp expérience su boobaa itam dagan na nga wax ko sa xalaat day bëgg a jëf day bëgg a dugg ci ngoro waaye bëgg dugg ci ngoro te ka takk xamul jikkoom yaa ko ko gën a xam yaa ko ko gën a jege ndax yaa bokk ak moom ci famille yaa wala yaa bokk moom koñ wala yaa bokk ak moom daayira wala association wala yaa jaxasoog ay mbokkam mu lay laaj ñu la waaw ndax diw moom sëykat la ndax diw moom famille am famille sëykat lañ nga wax ko lang ca xam dara ne ko ca diw de damaa bëggoon a associé moom ubbi benn poulailler wala benn boutique wala benn euh, tool lañ bëgg bokk wala dañoo bëgg a bokk atelier loo xam ci moom ndax moom ku jub la ndax moom warkat la wala déet nga wax ko la nga xam ci moom rek yem ca te muy dëgg yooyu dañuy wax ne euh, dagan na islaam du ko jàppe jëw du ci bindal kenn bàkkaaru jëw waaw mbokk yi kon loolu nañ ko bàyyi xel kuy laaj àtteeb diine walla kuy kalaame ku ko tooñ wala kuy seede ñooñu islaam may na leen ñu jëw ta dara du ca nekk loolu nañ ko gën a bàyyi xel waaye nañu wax dëgg rek teyam ca nag la domaine ba laaj mbokk kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci ñëpp tem bu sakkan la boo xam ne mën nañ ko waxtaane ay yooni yoon te yoon bu ci nekk nag euh, du bokk ak moroom ja yoon bu ci nekk aspect bañ koy waxe ak bañ cay bañ cay aborder wala angle bañ koy waxe du bokk ak moroom ja lu dul doy nag loo ci am doy loo ko kon ñu tegandi fii suñu baaraam di leen ñaax ngeen abonné ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yiin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter di ndax fi la njariñ ya di gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa